tuma salaatu wasalaamu ala nabiyihi safiyihi la ilam wa ala alihi wa sahbihi ma uhmila fawqa al alwaahi wal awraaqi al qalam wa baad asalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu e, mbokki réew mi rawante naag ndaw ñi e, xam ngeen ni ngi ci ñaar fukki at ak benn ci 31 décembre ñëwee diwaanu silkul jawaahir fi axbaari sarair ñoom di ci sant ku tedd ki Cheikh Ahmadou Bamba Xaadimu Rasuul moo mel ne boobaak léegi mu ngi bëgg yàgg ndax ñaar fukki at benn la ci bu ko defee muy nekk nag euh, lu symbolique ñu bëgg jeunesse bi yëpp dëgg la am na ci ñoo xamante ni bii am nañ programme annuel waaye nag njariñi ku tedd ki jamono bu nekk day améliorer wu di gën di feeñ njariñam ci jaam moo tax nag ñuy yéene jeunesse bi yépp njariñ loolu discours yi itam variété bi ak euh, amélioration yi ci ay innovation loolu mooy waral discours yi ndax itam àdduna moo baaxoon noonu étape bu nekk ak la ca xew jamono yi nga xamante ni bi dañoo toll ci di waajal révolution bu pacifique xalaa ku xalin faw ay discours yu bees di ci feeñ ay njariñ yu bees bi ci feeñ yoo xam ne day jóge ci xasaayiti ku tedd gi xalaa kulli xaalin bamba fépp ji day tax fii diiwaani sil kil jawaahiri fi axbaari sarair day tax ci li ñuy tuddee émergence wala amélioration faw ñu koy gisee nu nekk waaw moo xam ginnaaw intention yi faw ñu koy gis ci paroles yi ak démarché yi action yi ak actes yi bu ko defee ñu jàppee ko noonu incha allah dañoo fa yéene bu ñu ko bu ñu ko suñu borom mayee ak ko tal bu ñu jógee ci 31 décembre bi itam dañuy am daje bu mag incha allah ak kàngami journaliste yi ci li nu yéene bu fekkee may nañ ñu ko euh, bu loolu naree jafe ñu koy jaarale ci réseaux sociaux yi waaye daal dañoo dugg ci phase boo xam ne ñor na nañu ñorin woo xam ne te communication muy jiitu lépp waaw loolu moo tax ñu bëgg loo xamante ni bi xaj na ci 31 bi ci discours lu ci xajul wax dëgg yàlla dañuy amal benn conférence de presse nag ndax dégg ngeen yi ñu junj ci fan yi te dañoo bëgg junj yi di ko leeral mbàkki bari ji ñuy wax dañoo bëgg di ko leeral waaw bëgguma rek ñu defee ni dañoo tëb tëb rek di wax nii déedéet waaw jamono bu nekk ak li ciy war a xew jamono bii ñu toll nag dañoo dugg ñun ci étape boo xamante ne bii yi mu laaj waaw ginnaaw intention yi mu laaj waaw ci ay expression ak li mu laaj ci démarche loolu moom amuñu sañu amuñu ci lu ñuy bëgg ak lu ñuy bañ noonu lañ ñu koy ilhamee noonu lañ koy véhiculer bu ko defee rek euh, di ginnaaw bu ñu ziaree xalifa tey mi xalifa bu mag bi Touba Cheikh Mouhamadul Muntaka ziar Sëriñ Abbas ibnu Cheikh Ibrahima Fati sëriñ Moustapha Hafsa sëriñ Moustapha Saliou njabootu ku tedd ki yëpp kilifa yi ci réew mi yëpp e, ginnaaw bu ñu leen ziaree di ñaan rek wajxal qulubana ala tawaddudi ji ku tedd ki wax boromam ca matla bu shifa yi loolu rek nekk ci suñu diggante bu xal yi jagee rek lépp jag lépp ngi ci xol yi xol moom innamal ahmalu bi niyaati la ko tedd ki wax wa niyaati tabaruku bi saadaati ca xoqal bu kaaw ala saadaati amwaati waaw